mbaran Dakar Paris bi no ban tu dekon. non non bal ma gën a rek. non ban tu dekon. Ah. parce que boy boy boy boy marchand ambulant yëpp wax na ma ban day déconner. ah. boy démb may ñu ma jàmm bubs ban day déconner. nañ wàcc tali bi. waxuñu loolu nee nañu nga bàyyi pain yi ngay sol lañ ma wax. nañ dem bii ban la. waa ji. ah. bitim réew la nekk. ay xale yu jigéen yu dëkk Sénégal. di ñëw France. dañ ko dañ koo def lu ko metti mhm. waaye moom it nee naa ko yow miit mhm. yaa tooñ sa bopp waaw nee na day lancé alerte pour góor ñi nekk bitim réew te dëkk ñoom kese mhm. xale bu jigéen bi dafa Sénégal dem fa ci moom mu nekk ak moom galam gelam ñu dem ba ñoom ñaar ñu am problème ndaw si ñëw Sénégal jël benn xaritam yóbbu fa waxtaan ak moom mu may ko xarit bi manam ñaari jigéen ñi àndandoo teg ko déglul li ci des. benn euh, boo xamante ne bon moom dafay faral di ñëw fii. waaw bi mu ñëwee euh, yàlla dafa def maag moom ñu xamante. bon ay relation quoi. muy jóge fii di dem di ñibbiwaat Sénégal di ñëwaat fii en Europe quoi. mais bu fi ñëwee daf fii faral di def d'habitude euh, ay trois ou quatre mois jëm fi liggéey dara après delluwaat. bon yàlla def ma ak moom xamante quoi bi ñu xamante bon ki ma ko présenté woon euh, teeloon na ma avertir ne ma ndaw si c'est-à-dire dafiy ñëw pour mbaraan après dellu Sénégal ñu duwaat yàlla defee bu mu yàlla def bu mu ñëwee benn relation nekk et tout. Hmm, c'était bien quoi waaw teewul daf ma doon mbaraan j'accepte daf ma doon mbaraan loolu aussi ma accepté ko aussi ñu dem benn instant bon jikko yi ma gisoon ci moom dayuma. par la suite si lañ bàyyante mu ñibbi Sénégal bi mu ñibbee Sénégal def mu ñëwaat àndaat ak beneen copinam boo xamante ne moom aussi Sénégal la jóge aussi bon te comme ak moom danañ génn bon xam na man ban genre la soxoruma ci jigéen lépp lu jigéen soxla dama ko koy defal comprendre nga mais man nobbuma ko woon ko woon ko en fait xamoon naa ban genre la par la suite mu présenté benn copinam bon tagal copine bi ne ko vraiment waa ji ku baax la ainsi de suite dugg na fi jaar na fi affaire yooyu bon ma copine bi noonu ñu commencé gérer boobu copine bi moom amul fu mu dëkk amul fu mu nekk en fait mu woon beneen dëkk aussi à côté mais dafa ñëwoon ci ban dëkk bi ñu nekk ñun ànd ak xaritam boobu ma la doon wax ne ma moom jot nañ génn bon présenté ko ndaw si ne ma dafa am fenn fu mu bëgg a nekk quoi dafa bëgg a ñëw parce que dëkk bi ma nekk vraiment c'est un bon pays dëkk bi neex na ko gis na dëkk bi donc elle préfère rester ici bon au début man j'étais pas chaud quoi pour jéem a nekk ak moom xam nga parce que xam naa ne même li copinam bi capable moom aussi loolu la capable quoi mais elle m'a montré que ne moom. copinam bobu nonu mbarankat la duguna fi yak der der copine bobu quoi en fait je veux dire fek c'est des complices c'est dañuy bëgg ñëw pour que ñi prêter attention ci lolu bon en fait c'était pour ñëw am fenn fu mu wéeru parce que buñ doora ñëw ci dëkk dañuy bëgg am fenn foo xamante ne dañ fay wéeru xam góor ki di leen defal lu ne mais buñ demee ba comprendre ba xam dëkk bi commencé xam ci lañ lay tapas en fait tapas la créer la des problèmes génn fekk bi dem bi ñuy génn yow sa kër bon am nañ beneen góor bu leen dig dara wala bu leen jëlal appartement pour que ñu mën a nekk ak moom foofu man loolu lay prêter attention pour que sénégalais yi xam loolu ndaw si bi mu ñëwee que maa ngi moom ñi dëkk nekk waxuma la copinam bi de waxuma la ki ma njëkk xam de mais ki ma mujj présenté du mu ñëwee ma ak moom ñu dëkk j'ai tout fait defal ko lu ne loo xalaatul weer da daan jot sax weer da daan dee sax comme jigéen la ma yërëm ko daal te bàyyi na njaboot Sénégal je je préfère xam nga di di di ko dimbali daal di ko yóbbu si ay boutique di ko jëndal ay yére di ko lu mu soxla ma suba ba jant soo ma def ko mais pour wax la ne gel it ay takkat dil lañ c'est-à-dire seen baraan commencé Sénégal lañ koy commencé xaw ma dañ lay yeew xaw ma xaw ma dañ lay dañ lay dañ lay sëriñtu xaw ma nu mu demee noonu dañ xaw ma dañuy jàpp si tur ba buñ ñëwee lu ñu wax moom ngay def buñ demee nag ba commencé nand affaire yi ba commencé xam dëkk bi créer la tapas la des problèmes génn sa kër donc loolu nag moo tax ma may prêter may alerter Gani, bu ñu gisati mukk jigen bu nyofi Sénégal ñëw fi en Europe ñu jëm ko héberger sa kër seen kër jëm la dëkkoo comprendre nga di la defal àdduna ak li ci biir dañuy xëy bonjour tapas la des problèmes xëy génn dem seen yoon moo tax ku fi andi andi fi sa jabar andi fi sa njaboot sa jabar bi nga amal doom Sénégal andi ko fi andil koo xamante tey nandul yu bëri parce que buñ ko nandee rek commencé créer la des problèmes tapas la des histoires xëy génn sa kër te doo leen munal dara.